aji bu sumaare moom fi doon wuyu niki démb ginnaaw dañu toppoon démb ah? ngay teel a wax da nga surtout une heure nga def point de kii nii da ngay da ngay enchaîner wax bi daal. waaw ah. aji bu sumaare moo fa ne. te tey jii ñu ngi wax sax ne amaana mën nañ ko defeere

leneen ak leneen mën na ba ci uh-huh. mandat de dépôt soxna Aïcha uh-huh. alors aujourd'hui est euh, ce que réellement dafay xaw a méngoog li nga xam ne dégg nañ Aminata Touré ci wàllum réaction mu mu nekk ndax nee nañ dafa laaj laaj bu ànd ak junj Mhm. bon laaj bu ànd ak laaj laaj la parce que vraiment su fekkee affirmation dafa am tubaab da ko wax mhm. questionnement également dafa am mhm. te yaakaar naa ni euh, comme nu ñu ko faral di waxee man depuis le début que euh, euh, question du lu nu interdire ci réew mi plus particulièrement suñu réew yi nga xamante ni daanaka tey lii ay kàddu la yoo xamante ni waruñu ko prendre à la légère tey bu Hadjibou Soumaré daal di wax ci bataaxalam bi te bu ñuy fàttali bataaxal bi ba tey tuddul Marine Le Pen. non benn personnalité publique. Mhm. tey gouvernement bi ba muy tontu ci ci à travers kàddu porte parole bi la tudd baatu. Euh, turu Marine Le Pen mhm. donc tey jii. su fekkee ni nit posé na des questions ne est-ce que ba fi benn euh, personnalité bu dëkk France ñëw na da ngeen ko may lu toll ci juróom-ñaari milliards ci suñuy koppar. Mhm. dañ ci war a gaaw tontu. Mhm. mais gis nañ tontu bi. le gouvernement l'a fait mhm. mais accompagné de menaces mu mel ni ni kay waajaloon nañ ngir def lii question bi ñu war a poser mooy ndaxam jaroon na tey ñuy dem ba justice démb maa ngi koy def di di di ko samp ab laaj est-ce que tey jii euh, Babacar mi ngi mel ni ma ne ko Aïcha Thiam foo jëndee sa perruque bi. mu tontu ma ba pare dem porter ma plainte. foofu problème dafay am. Mm-hmm. mu mel ni tey lu nit ak nit war a daal di tontonte dañ koy yóbbu. fële ca kanamu justice mu mel ni tey ñoxor euh, njaay bu jug ñu porté la plainte ñu garde à vue la mhm. ñu defeere ko parce que ñu ngi dégg ne dinañ ko fas yéene daal di defeere ci ay question képp yoo xamante ni dañ koo mhm. posé lii dañuy dañuy dem bay xalaat ni est euh, n'est-ce mhm. euh, tey benn acte nguur gi fi nekk posé en quelque sorte boo xamante ni dina wan nekk ni dañ leen war a limiter ci li ngeen war a laaj ak lu ngeen warta laaj te Hadjibou Soumaré ancien ministre la Mm-hmm. am na ay information yoo xamante ni mënees na ko jot wala boog ay questionnement su demee ba am ko am na fu leer fum ko teg mm-hmm. te am na ay élément lii dafa doon ci sama xalaat ndimbal ci gouvernement bu Sénégal mm-hmm. ci tey euh, maanaam question yu bëri bu ko ñeneen déggoon fu mu mënoon waroon mën a yegg tey jii imaginons mu doonoon beneen personalité politique boo xam te ni du jaar sax ci lettre ouverte di def ay questionnement day ñëw rek def affirmation dem tey jii lan la nguur gi doon moo ko naroon fekk ci ci loolu. ma mhm. yaakaar ni nag ces question euh, du benn question. Mhm. y a la question concernant les élections entre autres yoo xamante ni lu lu lu bëri la woon loo xamante ni nguur gi waroon na cee mën a tontu sans autant que mu mu yegg fii. Mhm. et puis lii day mel ni tam comme ni ko Aminata Touré wax du ñu ko may humiliation mën na kaa nekk ndax su fekkee ancien ministre nga toog sa ruq. ba naga si nga génn ñu ne ah lii dañ koo def ngir taqal nguur gi war a boog ngir doyadi nguur gi fi nekk dafay indiwu leneen te tey ñun citoyen lambda yi sax dañoo am euh, priorité am tam li nga xamante ni moo di sañ-sañ. ñun bu ñu déggee ay koppar jaar na fii. ñu daal di laaj fan la dugg. ndax suñu koppar am na organisation yu bëri dañ ne nañu bind ay pancarte euh, fan la sept milliards yi dugg wala ndax réellement jox nañ ko Marine Le Pen. ñu tontu ci askan wi ñu xam ni lii ak lii ak lii parce que Sénégal pays pays pays bu nekk envoie de développement la. Sénégal li fi nekk ci ay moo kenn xamul nu mu toll ndóol gaag ñuy bëgg a rey donc tey bu ñu déggee nii dem na ci. kenn na ko leeral ci pièce par pièce fan la dugg ak naka la demee mhm. te ñu bañ utiliser li nga xamante ni moom moo di yoon wala li nga xamante ni moom moo di euh, war a mën indi ëllëg ñu def rapport de force parce que Hadjibou mhm. Soumaré ñii ñii di ay euh, euh, mu bokkal parti nee nañu tey dinañ def conférence de presse mhm. ngir mën a tontu ci li nga xamante ni jàpp nañ ñi tamit ay attaque la wala boog acharnement boo xamante ni mun nañ ko def seen kaw leader lu ci mënti am tey jii daal fi ñu toll moom moo di Sénégal trop trop ah, trop léegi euh, la tiit dafa war a jot léegi yow maanaam dañ naan pays démocratie lañ ne amatul démocratie mm-hmm. yow sax boo sañatoo wax dara loo xamante ne jëm na ci ñoom boo laajee ñu plainte la garde à vue la mm-hmm. boo affirmé ñu plainte la garde à vue la boo waxee wax bu simple ñu plainte la garde à vue la on dirait que mm-hmm. ñoom waroo wax jëmale ci ñoom daan juste que dañu war a ràññeet la rek fi ñu war a mën a jëlee nit yóbbu ko ci kanamu yoon ak fi ñu ko war mun yóbbu bu ñu gisee ci ci cas bi ñu mel moom. Mhm. ko poser question laaj la. Mhm. tontu ko mu mhm. jeex comme que Abdou Karim Fofana tontu na ko. su doyee sénégalais yi ñu xam ne doy na ko. wala moom bu ko doyee ñu xam ne doy na ko bu ko doyul ñu xam ne doy doyu ko. tey ñu jël lii ñu jël ñu jël question yépp ñu tontu ci point par point dafay mel ni sénégalais la ñuy tontuwaale. Sénégal nag dañoo war a jug ci lii ñu nekk.

c'est-à-dire c'est difficile à expliquer mais man je me suis dit que ne benn côté en tant qu'une personnalité comme Hadjibou Soumaré mhm. booy dem bay avancer yenn questions yi mhm. d'autant plus mu war a nekk auprès de de la plus haute institution mhm. je pense que ne war na mën a am ay firnde fu mu koy teg il y a beaucoup il doit y beaucoup plus de responsabilité pour un ancien premier ministre qui s'interroge sur des questions que mu nekk loo xam ne lu palpable la war a mën a sukkandiku di poser question yi que mu dem ci kanamu enquêteurs yi que muy nekk problème mm-hmm. mais doo xëy xëy rek mu neex la rek ngay poser waaye question à la légèreté comme ça mm-hmm. mais au moins que ni am na ay sources yu ko war a mën a may que ni nangam ak nangam am na wala am na loo xamante ni jot naa xew ba moo tax Hadjibou Soumaré di poser question yi mm-hmm. donc il y deux choses yoo xamante ni jot na cee taxaw tey boo nee ba yegg si foo xamante ni kenn dootul la dicter mais war na mën a am loo xam ne lu gën a dëgër lu gën a palpable balaa muy avancer yenn questions yi ni mel parce que même bu dul dara sax question moom ngay poser mais question yi ngay poser également aussi mm-hmm. mën na méngu ak ce que l'on appelle diffamation mm-hmm. maanaam junj yoo xamante ni da comme si que nit ki da koy accuser véritablement mm-hmm. te tey boo ko xoolee bu baax question yi ma posé dafay méngoo ko ni Hadjibou Soumaré comme si dafay wax koppar xam ne jot nañ ko ko jox mais lu ci mën am aussi je pense que ni waroon na mën a demee neneen ah parce que bu dul dara aussi am na tànk yoo xam ne jot na ko am Sénégal ah jot na fi jiite jot na fi doxal ah je pense que ni lii dafay gën a méngoo lii mm-hmm. Mimi Touré wax plus d'humiliation mais il y a certaines on peut être beaucoup plus grand que ça yegg ci yenn niveau yi quand même waar euh,